nu am na solo loolu ak gouvernement bi ni ñu ciy sonnee boo xoolee leneen lu xew ailleurs nga gis li nga xam ni moo xew à l'intérieur ñu war a jël feebar bi plus au sérieux parce que tamit vraiment euh, comme ni ñu ko waxee l'heure est grave nanu ko xamee noonu et puis nanuy sànni suñu bët fu sori xam ni lii dal ñeneen ñi mënoon nañoo dal lii ni may def noonu lay def Sadia mii sëy ak Saneex Sadia Gueye nii la ko nii la ko di def Saneex du nit e fexeel jot ko fexeel nga jot Cheikhou <laughs> dégg nga eh, kii mujj maa dem mujj maa dem na demul kii kan la sama waajee fi nekk de kii dafa mel ni c'est c'est c'est l'inspecteur Ban salaamaaleykum inspecteur. waaw oui sama waa ji ci maa ngi lay ziar. waaw maa ngi lay bëgg sama waa ji namm naa la nag de. mais xam nga ni maa la raw inspecteur ñun heure bu ñu yeewoo di xalaas yaa ngi boobu yaa ngi sa kër ah ki nga xam ni moom mooy mari Ban di la defaral ay croissant ay petit déjeuner au lit man ak am Amane Ndiaye toog ca plateau ba nga toog sa kër tamit Ban loolu war nañ cee wax quand waa mais mais tey damaa dem ngaabu euh, ànd ak gendarme yi di wër waa. Pape ndekki yi ci ndekki yi nañu wax ci say ndekki ba pare. non xam nga ndekki yi moom ay ndekki xam nga ndekki mari moom xam nga ndekki la rek. <laughs> waaw léegi aje kon nañ dem tey fan nga nekk nii ak ci loo nekk nii. non ziaral maa ngi nii Touba Mbacké xanaa gisoo jumaa ji ci ginnaaw nag yow itam. ziaral macha allah baan macha allah baan ñoo ngi ziar baan ñoo ngi ziar ñoo ngi ziar bu baax a baax a baax ñoo ngi ziar baan ñu ngi ziar bu baax. ñu ngi baax baan muy ziar ñu li ji dafa mën a tooñ tamit waaw lu ma def ah xam ni kat yaa ngi téye caméra bi muy téye ko bu baax téye ko baax ñu gis non jumaa ji laa la doon jox rek macha allah macha allah suñu jumaa jaa ngi noonu macha allah waaw waaw tey jii tey dama ñëw ànd ak euh, gendarmerie mhm. euh, euh, xam nga gendarmerie moom li wër Touba yëpp ba ba ba ba ba nit ñi nekk. Euh, ba Ndindi ñoom ñoom ñoo fa nekk na ñoom depuis vingt ba léegi. Mhm. wax dëgg yàlla comme li gis ci yenn dëkk yëpp doo gis ni kuy dox euh, benn oto buy taxawaaw. wallaay dëgg la wallaay dëgg la. rafet na sell na mais mhm. mesures yi nga xam ne moom moo génn keroog waxoon naa la ko keroog bi ma jëlee en direct. Mhm. nee naa la soo moytuwul couvre-feu bi dinañ ko wàccee ba dix huit heures soo moytuwul dinañ def port de casque obligatoire. dafa wax moom moom moo ciy génn. wax nga ko fi keroog. mu nekk lu am solo bu fekkee yooyu nag waa gis ay dañ koy perte ah dañuy perte baan donc fexeel apulaay euh, fexeel nga amaat ko bu baax a baax a baax baan il faut ñëwaat parce que moom rek moo ñu mën a wax li nga xam ni moo xew ci mbedd mi heure bi parce que moom la ñuy yónni ci mbedd mi muy ànd ak kilifa yooyu nga xam ne ñoom lañu ñu dénk wàllu armée bi te ñu nekk ci mbedd mi donc ban i faut ñu koy am mu mën ñoo wax li nga xam ni tembe tembe mooy xew ci mbedd mi tey fi ñu euh, fi ñu toll nii mu ngi ci dëkk bu se dëkk bu tell euh, bu sell bi nga xam ni moom mooy ci Touba Mbacké nga xam ni borom Touba euh, damay fàttali rek ne ba ko Touba ba convoqué dégg nga ni euh, bur yàlla dee ko ca Mbacké nan ko da ngay waaji tukki faaw ilaa nabi Mbacké sama waaji la ñëw moom la woolu mu ñëw maam Thierno hmm, borom daaru Baye aw Balla ak Modou aw Balla wax naa ni maam rakk la rëkk la borom mbax ne cur carja borom na mbay baat ya tëxëram ba bët gi ne ko demal ma ndar te ñëw ma déglu saa borom ne waaw waxtu sama dem léegi mu jot dégg nga ni Thierno ko jiitu woon fa ndar dem fay nduróog gaynde gu ne tàng fa aw tàngaay wu tar ñu naan buy delsu nan ko kar mu delsu ne ko doo seen morom wane nga ko lan ma waxoon fàttewu ma ko te samay wax ñoom xam nañu ko kooku mooy cheikhul xadim bàyyi basak baara maa mi dan ak cheikh waaja demoon gabon dem wiir wiir dem maa yombeg libéri wili baan yaa ngi ci dëkk bu tedd waaw waaw dëgg la euh, avant may dàmbali sa dama dem ci seen sama sëriñ cheikh Bassirou Abdou Khadre mhm. jaar jaar ko mu ñaanal ma mhm. ma wax ko li may liggéey temps yi yëpp mu daat ma ciy ñaanal raaye gi nga xam ne police jox na ma ko daat ko koy jox mu ñaanal ma macha allah euh, day doog a dëkk bi nag euh, wër dëkk bi su pare naa ak gendarmerie su ma paree fi mu nii police laay àndal war a dugg nag biir Touba xam nga gendarmerie ñoo yor li wër Touba. Mm-hmm, mm-hmm. Mm-hmm. commissaire bi la fas yéenee àndal. bi nga xam ne moom moo du roq Touba yi roq yi biir quartier yeeg ñoom seen ay ak ñoom seen xool ba xam waa dëkk bi ñu seen wala nekk seen i. am na solo baan loolu am na solo mais baan. Euh, depuis bi ngay génn ba tey loo gis yaa ngi gis ni euh, affaire yi mu ngi organisé wu quand même booy doxee ci mbedd mi doo gis kenn ku dox ci mbedd mi lépp ñu ngi koy teg ci yoon vraiment yéen yéen ñi nga xam ne yéen ay homme de waa mbedd mi wala ñi nga xam ne ñoom ñooy euh, askan wi ñu ngi leen di yombalal seen liggéey bu baax a baax a baax. waaw waaw effectivement couvre-feu bi moom couvre-feu vingt heures ba six heures du matin moom wax mm. dëgg yàlla sénégalais yi ñu ngi koy respecté fépp fi nga xam ne dem nañ que takk der yi ñu ngi ci liggéey am solo foo tuddee di nga daje gendarmerie foo tuddee police check point yi kal yi ñi nga xam ne ñoom la ñuy woowee waa recherche dafa am ñoo xam ne recherche sol ay tenue mm-hmm. ñoom ñooy dox nag ci quartier yi mm-hmm. a aba muy dox ak ndoy baan ñi nga xam ne ñoom ñoo sol tenue nag ñoom ñooy di arrêté oto yi di vérifier donc ce que veut dire li gis daal mooy vingt heures ba six heures nañ loolu Sénégal feebar bi problème bi am mooy diggante sept heures du matin. bi am rassemblement parce que soo soo dee dox abaa bu gis nit ñi muy Dakar muy Touba muy Mbacké muy Louga muy Ndar foo mun ci dem nit ñi ci mbedd mi journée doy na waar day daw yaram. da ngay mel ni nit ñi yëguñu li xew. donc diggante diggante diggante daal ba vingt war nañ cee sàq pexe xaw ma lu ñuy def nag waaye war nañ cee sàq pexe. dëgg la dëgg la am na solo donc am na solo moo tax euh, loolu loolu loolu tax peut-être xam naa ñu élargir li nga xam ni moom mooy kii bi yóbbu ko mu gën a wàcc ba 18 heures loolu tamit baan il faut askan wi xam ni pour ñun la. mais waxoon naa la ko fii keroog bi ma la ko fi waxee da ngaa yuuxu bi ma la koy wax keroog ma. baan bi ngay wax da nga ni ñu wàcc ko ba midi. loolu laa ànd ak yow. Ah. mu ne la 18 heures wala midi. parce que nit suñu jéemul ñun ñun ñi suñu jéem a yar yar jéemut a yar so seen bopp. dëgg la ñuy def pour yow la. baan baan baan sax du fi gëj baan moom du fi gëj xam naa ne apulaay baan bu demee tamit dina ñëwaat léegi léegi parce que li muy wax dafa am solo lool xam naa ne nit ñi comme ni